نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما بعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعتاؤه من الاستعداد التي جعلها فيه كامنا فألهمه ومكنه وأرسل إليه رسله لاستخراج تلك القوة التي أهلها بها وأرشد قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فعبر عن خلق النفس بتسوية ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى ثم قص بالفلاح من زكاها ورفأها بآدابها التي أدب بها رسله وهي التقوى ثم حكم بالشقاء على من دساها فأخفاها بالفجور فقال جل وعلا ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون mbokk julit yi ñi ngi sant sunu boroom mi nga xam ni mboole mi xéewal yi ñu xam ak yi ñu xamul ci moom la bawoo ñi ngi koy ñaan mu baal ñu sunu bakkaar yu bari te musal ñu ci sunu ay bakkan ñi ngi seede ni yàlla rek mooy ki yelloo ñu koy jaamu nañuy jaamoo yàlla it dañ koo war a roye ca kam doyloo woon yónni ko ci ñun yeneen tam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dénk sama bopp te di leen dénk ñu ragal yàlla képp koo xam ne ragal nga yàlla xat-xat ya nga nekk yàlla dana la ca mës a génni te dana la wërsëgal foo ko foogewul woon ba dee loolu wéy na mbokk jullit xamal ne sunu boroom dafa bind doomu aadama indi ci indi ko ci kaw suuf mu war a doon ko mat sëkk war a safaanoo ak baayu may sunu boroom dugal ci moom benn kattan gu rëy kattan googu it mu xiirtal ko tàllal ko ñaari yoon yoon boo xam ne nii dana ca mën a yëkkati ko dana ca mën a texe ca yoon woowu ka nga xam ne moo koy tegtale mooy yonent yi nga xam ne da ko yónni woon ci ñun ñu war ñoo leeral ana ñun fan la ñuy jaar beneen yoon bi mooy yoonu cànkute gi yoon boobu nga xam ni suñ boroom subhanahu wa taala mi ngi leeral loolu mu ne mi ngi waat ci bakkan ak ki ko yemele te kenn yemelewu ko ku dul yàlla sunu boroom subhanahu wa taala mu ni moo ko xiirtal mu mën a baax amul kenn ku am xel nekk ci kaw suuf lu dul ne mën naa baax waaye moo ko xiirtalit mu mën a bon amul kenn ku nekk ci kaw suuf lu dul ne mën naa bon léegi nag sunu borom mu ni texe na gën jaa màggi texe ki nga xam ne dafa sellal bakkan boobu daa di yëkkati bakkan boobu daa di koy teg ca yoonu yenent ya yoon yooyu nga xam ni ñi ngi koy tuddee ak ragal yàlla muy at taqwa mbokk jullit yi doomu aadama yi fa la ñu gënante doomu aadama yi gënante wuñu ci seen doole ju rëy kon mbëri lamb yi ñooy gën doomu aadama yi gënante wuñu ci ak juddu doomu aadama yi gënante wuñu ci xam-xam buñ doon jàng waaye doomu aadama yi ñi ngi gënante ci ragal yàlla ki gën ci doomu aadama yi sawaun góor la wala jigéen kooku mooy ka nga xam ne moo gën a ragal yàlla waaye gannaaw loolu itamit sunu boroom am na yoon wu am ci kaw suuf yoon woo xam ne bëggu ko gërëmu ko mooy yoon wa nga xam ne ci la seytaane di woote képp koo xam ne nii sàggane nga sa bakkan daa di muur la ko waroon a yëkkati daa di koy teg ci yoonu dëng woowu xamal ne yaa yiis ci mindaafon yi su ko defee doomu aadama yi lañ leen war a xeebe du ne fii la ñu juddoo wala nii la ñu mel wala lii la ñuy liggéeyee waaye la nga xam ne mooy texe di ca yàlla ak niti lislaam mooy ku gën a kàccoor ci doomu aadama yi yow yaa gën a texe di sunu boroom bi mu jëlee doomu aadama dugal ci moom kattan googu mu dugal ci moom kattan googu dafa am nag ay buntu yoo xam ne ca lay mën a jaar ba jaar ci yoonu texe waaye mu amit yeneen bunt yoo xam ne ca lay mën a jaar ba jaar ci yoonu texe di mbokk bunt yooyu dañuy gis ne mooy li borom bi subhanahu wa taala di wax ni huwa allazi anshaakum wa jaala lakum alsama wal absar wal afida qalilan ma tashkurun ay yéen doomu aadama yi maa leen sos jël leen may leen li nga xam ne mooy am xel waaye may leen ay nopp waaye may leen ay bët xel moomu nga xam ne ca la ñuy natti nit ñi lii di sharia muy diine lislaam ku amul xel bokkatoo ci waaye xel moomu itamit dafa am ñaari ndaw yu mag ndaw bu jëkk ba mooy la nga xamee ne mooy ak dégg waaye ndaw ñaareel ba mooy la nga xamee ne mooy ak gis sun borom subhanahu wa taala nag mu ne man day lii nga xam ne mooy sawara bindal naa ko lu bari ci samay jaam ana lu tax ñu nar a tabbi sawara sun borom mu ne dama leen a may ay xel te duñ ci xalaat dama leen a may ay bët te duñ ci gisee dama leen a may ay nopp te duñ ci dégge ndax loolu day firi ne waa sawara mooy ñu gumba tëx ba pare dof laa wallahi mbokku la nga xamee ne moom la sunu borom subhanahu wa taala di namm ci dégg googu mooy du ñu déglu la nga xam ne moo leen di jëriñ du ñu nekk di xool la nga xam ne moo leen di jëriñ ca li nga xamee ne mooy gis ak dégg dañuy xam ne ñaari xéewal la waaye xéewalu dégg moo gën a màgg téeméeri yoon xéewalu gis doomu aadama mën naa gumba teewul mu dem ñu def ko imaam wala def ko mufti sax muy muy ubbee borom xam-xam yi waaye nit ki nga xam ne nii dafa tëxoon da ngay gis na loolu du ci mën a taxawe dara kon bokk na li gën a màgg ci doomu aadama yàlla may ko ko muy la nga xam ne dégg ga muy dégloo la ma yow mbokk julit dégg googu ana ci loo koy war a utiliser dégg mooy ki nga xam ne mooy jàngal xel dégg mooy ki nga xam ne mooy ndawal xel dégg mooy ki nga xam ne mooy wéttali xel doomu aadama yi ñi ngi rawantee ca la ñuy déglu doomu aadama yi ña ngay wuutee ca la ñuy déglu képp koo xam ne tànkuwaayam tànkuwaay bu baax la ku mel ne ni xelam dana jub xolam jub mu daal di doon koo xam ne ku jub la amma koo xam ne la ko ay noppam di tànqal mooy loo xam ne sobe la baaxul xol bu mel noonu day sobewu bu ko defee jëmm da nga xam ne moo ko ëmb sobewu dara lu baax du ci mën a génne loolu moo tax ba mbokk julit lii nga xam ne mooy ak déglu nañu xam ne ñetti façon déglu am na ci kaw suuf benn déglu bi mooy ba nga xamee ne nii sunu borom yàlla da koo gërëm sunu borom yàlla dafa santaane ñu déglu ko sunu borom yàlla ŋàññi ña nga xam ne dañ koo woon gannaaw déglu googu mooy lan mooy déglu lam wàcce woon ca yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii farata la ci doomu aadama bi nekk góor wala doomu aadama bi nekk jigéen mu jéem a déglu ji lan la yàlla wàcce ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la borom bi subhanahu wa taala di wax ni julit ñu baax ñi day mooy ñi nga xam ne dañ naan sami'na wa ata'na et yàlla dégg nañu li nga xam ne moom nga santaane waaye yàlla gannaaw ba jëfee nañu li nga xam ne moom nga santaane loolu nga xam ne mooy dégg gu màgg googu gis nañu ne sunu borom subhanahu wa taala la ca gën a màgg mooy alquranul karim di aaya yooyu nga xam ne dañu koy wàcc ci téeréem mu daa di sant góor ñi daa di sant jigéen ñi ñu fàttaliku la nga xam ne moo nekk ca aaya yooyu mi ngi wax ak soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan leen wazkurna ma yutla fi buyutik fi buyutikunna ngalla waay na ngeen di déglu cay fàttaliku li nga xam ne dañ koy jàng ci seen biir kër yi loolu moo tax ba mbokk julit bokkoon na loo xam ne nii wareef la ci ñun mooy ñu góor góorlu sunu kemtalayel kattan ba bépp jataay bu ñuy toog rawatine kër yi nga xam ne ñun ñoo ko contrôlé kër gi kenn du fi yëkkati benn kaddu lu dul kaddu goo xam ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala da ko gërëm na doon loolee dafay jóge ca nit ña nekk ca biir kër ga ki nga xam ne mooy borom kërug julit dana góor góor lu kemtalal kattam ba góor ñi di wax lu baax ba jigéen ñi di lu wax lu baax waaye bépp matériel boo xam ne it yàlla wërsëgal na ko mu nekk ci kër gi mu fexe ba dara du ca génne lu dul loo xam ne yàlla ak yonent yàlla da ko gërëm lii mbokk mooy déglu gisunu borom subhanahu wa taala di ŋàññe waa sawara waa sawara buñ jógee sawara am na lu ñuy wax ay law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sair ay waay bu doon ca àdduna ñi ngi doon dégg ay waay bu doon ca àdduna ñi ngi doon gis kon day tey duñu tabbi ci sawara bi nga xam ne mooy sair mbokk dégg ga mooy lan moo na ña nga doon déglu caaxaan yaag musique ya moo na ña nga doon seetaan football yaag nda ndaje ya waaye kon ana ban dégg moom la ñuy rëccu na dégguñu ko woon mooy ñoom la leen yàlla mayoon ci énergie nekkuñu woon di ko dégloo la nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala bëgg ci ñoom te mooy fexe ba déglu aaya yi borom bi subhanahu wa taala fexe ba déglu xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom mooy leeral loolu lii mbokk julit dañuy gis ne loolu mooy tax ba waa sawara di rëccu rëccu googu nga xam ne yal na yàlla musal ñu ci ñaareelu déglu bi moom mooy déglu li nga xam ne wax la ju amul bakkaar waaye wax la it bu amul njëriñ loolee dañuy gis ne su dee bakkaar nekku ca dagan na nga déglu ko donte ne soo ko mënoon a bayit da ngay gis ne loolee mooy la gën ndax temps la booy perte ci loo xam ne nii mënoon nga caa def leneen ca loolu it bokk na natt bi ñu ci yàlla nattoo ñun tey mooy da ngay gis téeméeri rajo ak juróom fukk ku nekk am na sa programme information ku nekk sa am na émission booy def table ronde sur tel débat sur tel invité sur tel loo xam ne liñ lay waxal amalu la benn njëriñ ci sa wàllu diine amalu la benn njëriñ ci sa wàllu adduna rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na luy rafetal diiney jullit bi mooy mu bàyyi lépp loo xam ne amulu ko njëriñ kon bépp émission bay déglu ca télé bépp émission bay déglu ca rajo laajal sa bopp waaw trente minutes yi une heure de temps yi ma nar a jagleel lii ban intérêt la ma amal su dee amal na la intérêt ci wàllu adduna falilahi alhamd dañoo war a defar adduna ak alaxira su la amal na la intérêt si wàllu diine falilahi alhamd loolu wareef la waaye bu dee luy bégal xol dong la bu dee lu ñuy nettali dong la bu dee ab culture dong la amalu la benn njëriñ nga la way ba ko ca dem ci leneen loo xam ne dana la amal njëriñ la nga xam ne moo ñetteelu déglu bi mooy déglu boo xam ne nii nag day pertal doomu aadama day alag doomu aadama ca insha allah moo nar a nekk sunu ñaareelu xutba yal na yàlla wërsëgal ñu ñu jëriñoo sunuy nopp jëriñoo suñuy bët jëriñoo suñuy xol te la nga xam ne yàllaa ko bi yeneen tam gërëm nañ ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله القسم الثالث من السماع ما يبغضه الله ويكرهه ويمده المعرض عنه وهو السماء كل ما كل ما يد ما يضر العبد في قلبه ودينه كالسماء اللغو الذي مدح التاركين لسمائه والمعرض عنه والمعرضين عنه فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو معرضون وقال جل وعلا وإذا مروا بلغو مروا كراما وقال سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال مجاهد رحمه الله اللهو الحديث هو الغنى قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما تنبت الماء البقل وقال ابن القيم رحمه الله فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا تردت أحدهما الأخرى وكان المشركون يقولون لا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أيان بكو جلدني xam leen ne ñetteelu déglu bi nga xam ne doomu aadama dana ko déglu ci kaw suuf mooy bépp kaddu goo xam ne sunu borom yàlla da koo bañ da koo sib dafa gërëm ña nga xam ne buñ ko dégloo du mooyu ko ca mooy lépp loo xam ne day lor doomu aadama bi ci diineem ak ci addunaam mi ngi mel ne rek li nga xam ne mooy puukare yi ca la jiitu ci puukare yooyu mbokk mooy musique bu bon bi nga xam ne tey daganal nañ ko yëkkati nañ ko kilifa yi jël nañ ko teg ko ci kaw lépp jàpp nañ ni musique mooy xettali lépp luñ mën a defar ñu nañ woo musiciens yi ñu tëgg musique la cay di la ñu def ko place sangam ñoom ñu tëdd leen ay star mooy biddiw yi nga xam ne ñoo tiim lépp lii mbokk mbir la boo xam ne nii wareef la ci kilifa yi ñu leeral sunu njaboot gi ba xam ne mbir mi demewul noonu ni waa àdduna gise musique bu bon boobu bokk nag na ko yàlla ak yonentam gisee ak li nga xam ne nii moom mooy diinir islam mbokk julit sunu borom yàlla subhanahu wa taala def ne ñi texe dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu seen biir julli waaye bu ñu déggee ay puukare ay tëgg ki fecci ñu daal di koy du mooy woon ko gannaaw ñii ñooy ñi texe sunu borom wax mandargay ibadu rahman jaamam yi nga xam ne ñooy nar a dëkk àddina ëllëg mu ne ñoom day waxuma dem ci ay caaxaan waaye même buñ fa rombee sax da ngay gis dañuy romb ak seen personnalité ku nekk ca xew la da ngay xam ne ñun ñii day li ñuy def ittiilul waajee nga xam ne mooy romb mooy marru kirama gannaaw loolu sunu borom mu ne am na ci nit ñoo xam ne dañuy jël alal di ko def ci ay puukare ci ay wax ngiree wax jooju mën a baare nit ñi ci li nga xamee ne mooy yoonu yàlla te wallahi loolu lu am la am na benn franc-maçon bu mag boo xamee ne nii mi ngi doon def benn gëstu bu rëy ci diine lislaam ak nan la ñuy mën a fexee ba bala ko ko mu ne maa ngi leen di yëgal ñaar de kaasu sangara ak jigéen juy way moo gën a garaaw ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii di junni char de combat su ngeen bëggee yàq julit ñi du char de combat leen di yàq li leen di yàq dëgg-dëgg mooy fexe leen ba ñuy déglu musique fexe leen ba ñuy nan sangara loolee nag sunu borom yàlla wax nga xam ne mooy lëxwal hadis kii nga xam ne mooy mujahid ca ku lay xamal mujahid yow jàngkat bi taalibi ibnu abbas ma yeneen bi ñaanaloon na yàlla na ko yàlla xamal diine mi am tafsir bu mag bu jiite ci tafsir yi mujahid boobu nee na lii nga xam ne mooy lëxwal hadis bi gaa yi bëgg a fayal islam mooy musique bu bon bi musique boobu nga xam ne abdullah ibni mas'ud ca kuy abdullah ibni mas'ud ki nga xam ne moo lën koo woon ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne mooy njëlbeenu xaadimu rasul abdullah ibni mas'ud boobu da ngay gis ne daana wax ne lii nga xam ne moom mooy musique ak i way dafay suuxat naafiq ci xolu doomu aadama bi ni nga xamee ne noonu la ndox di suuxate jardin ba lu jum ya ca nekk yépp nag loo gën a déglu musique noonu lay gën a suuxate naa féq ci li nga xam ne mooy sa xol kii nga xam ne di xalaat bu mag di ibnul qayimu jawzi nga xam ne yéen borom xam-xam yi xam ngeen ko daana wax ne ñaar yii de munta nekk abadan bëgg alquran sopp ko ak bëgg musique sopp ko duñu daje mukk ci xolu doomu aadama bu ñu dajee imma alquran dàq musique toog wala imma musique dàq alquran toog waaye sopp alquran sopp musique duñu mën a daje abadan ci xolu doomu aadama léegi nag yow julit yaa seet looy tànn su ko defee kon da ngay gis ne lii nga xam ne mooy yéeféer yu jëkk ya bokk na luñ daan wax bu leen déglu alquran indi leen ay caaxaan ba nit ñi mën a not ba caaxaan yooyu mën a not ba dox diggante nit ñi ak alquran ar rasul sallallahu alayhi wa sallam da daan def heure bu nekk ci kaaba gi di jàng alquran yéeféer yi ñëw di ko déglu ca baatam bu neex ba ca toroxlom nga ca jooyam daan jooy ci kanamu boromam yéem nit ñi impressionné nit ñi waaye bu ko defee yéefar yu bon ya rawatina kii di nadr ibnu xaaris dañ naan dem ba ruum jël fa jigéen ñu rafet yu neex baat yu mën a way su ko defee bu guddi jotee bu yonent bi dee jàngal quran jigéen ñi di way ñu boole ko tëgg di fecc borom gaa yi néew bopp yépp bàyyi yonent bi dem déglu ji la nga xam ne mooy caaxaan yooyu waaye tey mbokk julit xool leen li ngeen di gis tey bu ñee hayya ala salaa ci jàkka ji wa daa di wax hayyaala musique ca istaat ba mo gars yi lay dem istaat ak lay dem jàkk ndax daañ ko mën a méngale ca mooy kon kéeféer ga woon dañuy gis ne moom mooy répété wu nam même mela woon mu am temps yii fitna bu rëy bu ngeen seetaan seen télévision yi su ndaw ñu ñu dajale leen ay junni junni góor ak jigéen jaxasoo tampaloo ay musique kat yu ñu jëlee réew mi ak bandkat yu jóge bitim réew ku nekk di seet la nga man ci lu bon nga di ko wax loolee góor ak jigéen ñi ànd di tëb di fecc képp ku jàpp ne mbokk lii ànd naa ngërëmal yàlla yaa riire sa diine yaa suufantal sa diine mu am benn kilifa gu mag ca ñoom ñoom ñooy màggal musique doon ku ñàkk solo ku doy di lool ci bëtul islam muy xas politiciens yi di xas journalistes yi naan yéen a bëgg a sànni sawara ci sunu aljanna bi naam ñoom ñi ngi seen aljanna yonent bi salallahu alayhi wa sallam neewoon na adduna mooy aljana yéeféer yi waaye mooy kasu julit ñi ajjana mooy addu adduna mooy aljana yéeféer waaye mooy kasu julit naam seen ajjana mooy loolu mooy tëgg fecc détourné li nga xam ne moom mooy nit ñi ci jaamu yàlla loolu mooy aljanna waaye ñun ñi ngi leen di tontu di wax yéen musiciens yi yéen a ngi ñu bëgg a yàqal ajjana dañu yàlla dikk ajjana jooju nga xam ne mooy vrai aljanna ku fa dugg doo too génn ba faw doo tëddee ba faw yéen musiciens yi tamit ni leen politiciens yi bëgg a yàqale seen àjjana adduna yéen tamit ngalla waaye ñi ngi leen di déclaré ne yéen a ngi ñu bëgg a yàqal li nga xam ne mooy sunu àjjana dañu yàlla subhanahu wa taala dig góorgóorlu leen mbokk julit rasul salallahu alayhi wa sallam nee na aljana day ba ko yàlla defaree da koo muuree ci ay naqar da koo muuree ci ay coono amma sawara yàlla ba mu ko defaree da koo wërale ay bànneex da koo wërale ci li nga xam ne mooy bégal xol te mooy li nga xam ne moo feeñ ci sunu adduna bi ci lépp loo xam ne dañ cay noose góorgóorlu leen heure bu ngeen gisee benn mbir mu jaaxal leen lii dafa dagan wala dafa xaraam xool leen lan la mbir ba di jur mbokk lan la mbir ba di jur bi nga xamee ne nii yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla araamagul sang sangara sahaaba yi ñëw na ko waa yomu yàlla yónni loo xam ci sangara sunu borom dafa tontu ne ah yasalunaka anil xamri wal maysir qul fihima ismun kabirum wa manafiu linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima xam leen ne ñi ngi lay laaj sangara ak carte neel njëriñ mi ngi ci bakkaar mi ngi ci waaye la ca nekk ci bakkaar mu ëpp la ci nekk ci njëriñ avant ko yàlla di xaraamal borom xel yépp bàyyi nañu ba baa nag sunu borom doog a ñëw doog nag ne sangara dafa haram carte dafa haram seytaane moo ko indi ngir bëgg a dox nit ñi ñu bañ a fàttali ko yàlla bëgg a dox diggante nit ñi ñu julli loolee mbokk moom la yàlla wax ci sangara ak carte waaye kay leen ngeen xool musique ñun lan lañ gis ci musique bu bon boobu mbokk musique bu bon bi gis nañu ne tey xoolal night club yañ koy defee mooy seen jumaa ya ñuy daje ñoom di fa di fa musique lan ngeen gis ndax gaa yi sangara ba fa tasaaroo aha kay ndax tëgg tëb fecc góor ak jigéen jigéen taxaw pakkar ñi ay góor gis ko ñu daal di jël jabaru jàmbur góoru jàmbur tafoo daal di wiitoo ñu koy tudde ab baal di loolu mu am ci ñoom day loolee mbokk dañuy gis ne mooy lu bon la nga xam ne buuñaa la waaye lay tëj guddi musique ga mooy njaaloo boo xam ne njaaloo bu dul jeex la lii mbokk julit kon da ngay gis ne tey jii mbon gi am ci kaw suuf su doon te am na moteur bu koy suuxat mooy musique bu bon bi ba lenn ci xalaatkat yi dañuy wax ne sangara li muy bon bon musique moo ko gën a bon sangara dana yóbbu sa xel ay jamono waaye boo dellu see mën ngaa dellu si musique nag day teggi sa kersa musique nag day teggi sa ngëm ba nga mujj doon bàyyi ma bu sotti te boo ko bëggee xam yow mi yàlla may télévision bàyyil ba fecckat yi di fecc nga ñëw tëj volume télévision bi ba déggatoo dara léegi nag nga taxaw di leen seetaan da ngay xam ne mbokk lii doomu aadama du ko def boo xam ne ak doomu aadama mi ngi ci moom bal ay bàyyi ma lañu te bu ñu waxee bàyyi ma sax dañuy tooñ bàyyi ma yi bàyyi ma yi ñoo leen tane ndax sunu borom moo ko wax mu ne baluhum adall ñii de bàyyi ma yi leen tane la fa nekk mooy ñoom nekk nañ ñoo xam ne nit ñu saggan lañu loolu moo tax ba gis nañ ne xatta ñoom ña koy def waaye buñ jàppee ne lu baax la lu tax bu weeru koor jotee ñu ne dañuy arrêté seen musique bi da ngay gis benn débat bu rëy bu fi mas a am ci koo xam ne fekkoon gaa yi néeg buy takk au lieu mu jël si woo ndox sotti ca mu dem jël ay xal sotti ca ku ñuy tuddee koo xam ne nii jàng na diine nee na ñooy doomu sëriñ la dajale bandkat yépp naan leen waaw yéen nee ngeen weeru koor du ngeen musique da ngeen war a musique ndax da ngeen di liggéey kon da ngeen war a musique xam ngeen ko xam naa ko ñu jaarale ko suñu rajo yi mbokk loolu musiba mënu koo passé ñoom ña koy def xam nañ ne baaxul loolee buñ leen bàyyi woon rek amoon nañ benn aada démb mooy Sénégal lu waay sàggan sàggan lu mu saay saay saay saay su demee ba màgg daa di bàyyi loolu tuub dellu ci yàlla am na génération bi ñuy dund taaral nañ mbir yi yëkkati nañ mbir yi ba da ngay gis ku dem ba màgget dee yàlla mbon googu yéen a ngi gis les billets vietons lañ koy wax xam ngeen koy wax ay màgget yu ñuy woo ci télévision bu ñuy fàttali ko nañ daan baale lii mbokk musiba la boo xam ne ngalawaay góorgóorlu leen taxaw ci taxaw ci seen i ci seen i njaboot mu am musiba boo xam ne iblis dolli na ko ca muy ngañaay mooy alquran ba waroon a musal nit ñi génne leen ci caaxaan yooyu alquran boobu tey la ñuy jël boole ko ci seen musique yi di kaddu gi yàlla kaddu zikrullah di la ilaha illallah tey moom la ñuy jël boole ko ci seen musique yi loolee muy dëggal la yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxoon nee na dana mas am sama xeet ay nit ñoo xam ne daan jéem a daganal musique daan jéem a daganal sangara daan jéem a daganal li nga xam ne mooy njaaloo naam parce que kilifa diine bi nga xam ne nit ñi dañ koo sopp mu nekkoon fi di jàngale lislaam ñu ne waa ji kat moom sëriñ bi lay woy kon kay li muy def baax na ndax moom mi ngi woy sëriñ bi waa ji alquran lay jàng kon li muy def baax na ndax mi ngi jàng alquran waaw léegi da ngay xool sëriñ boobu muy woy su doon te ne dañ la wax yow kat sëriñ boobu da daan toog néegam di déglu musique doo xeex amul kenn ci ñoom ku dul ne sa sëriñ ba ñuy woy ku daje woon ak yow ci medd naan la yow dégg naa sa sëriñ danaan toog ci biir nag di déglu musique lu dul da nga jël yëg xeex ak moom kon xam nga ne loolu baaxul kon woy sëriñ ba woy alquran ja lépp mbokk dafa doon musiba boo xam ne dafa dollee ko ci kaw musiba da ngay gis lii gën a dolli seen xalif général ci wàllu musique mi ngi génne benn kaset nee naay ma ngi ko tudde sant yàlla bu doon sant yàlla sax la bind du du du dara waaye dafa bind sant allah loolu la ci bind sant allah loolu la ci bind dem naa ba ak ay yenn ci ay mbokk ba sax jokkoo ak seen maison de distribution bi wax leen ngal la waaye mënuma leen a tere musique bi de waaye allah mi ngeen bind ci kaaru sutarag yi boole ko kaseti musique ñu bind sant allah bind leen allah bi ngeen def ci leneen sant allah allah boobu mbokk luñ koy sante ndax mooy tëgg ki fecc laa wallahi hatta ñi nga xam ne dañuy woote diine daje ci diine yor ay ndënd yor ay tabala yor lu ñu mën a doon di tëgg ak fecc di tudd turu yàlla nañu xam ne loolee mi ngi jóge woon ci indu ya démb jaar ci majus yi dem ci mushrikuna arab yi daan wër kaaba gi di tëgg ka fecc ka tàccu dem na ci nasaraan yi ak yahud yi gannaaw la ko lislaam doog a jël dugal ci biir lislaam waaye mbokk sant yàlla tàccu amu ca sant yàlla tëgg amu ca sant yàlla sarxole amu ca sant yàlla toroxlu la xanaa sant yàlla du jaamu yàlla kan moo ñu jàngal jaamu yàlla xanaa du sunu yonent muhammad salallahu alayhi wa sallam nañ dem laaj ku ko gën a xam muy soxnaam sa aïcha radiallahu anha sunu yonent alayhi salaam taxaw na ay guddi day taxaw di naafila ba tànkam ya newi muy sujud di jooy ba dënnam ba di riir comme kaw jir saxaaba yi laaj ko ayum yàlla yónni xanaa da ngaa fàtte yàlla baal na la loo mas a def ci bàkkaar yàlla baal na la loo mas loo nar a def ci bàkkaar mu ne waaw xanaa du ma doon jaam buy sant yàlla gars yi nii la ñuy sant yàlla toroxlu ci kanamu yàlla baril suñuy julli baril suñu koor nii la ñuy sante borom bi subhanahu wa taala waaye du nekk ay musique du nekk ay tëgg du nokk li nga xam ne mooy ay fecc lii mbokk gannaaw loolu maa ngi jeexal sama xutba ci benn laayi biir boo xam ni ñi ngi kay laayi biir bépp mbokk ci ñun xamal na sa nopp bi lépp loo xam ne dugg na ci ca sa xol la jëm di ko enregistré ji loolee da ngay gis gaa yi publicité xam nañ ko bu baax dañuy jël ay millions la ñuy fay rajo ak télévision di publicité tey wóor na ma ne amul benn jigéen buy dem marché dugg ba pare fàtte jumbo déedéet lu tax mooy yaa ngi dégg jumbo jumbo donte ne defaluma leen ab publicité boo xurma jumbo waaye loolu dama ciy jël rek exemple mooy li nga yàgg dégg day mujj kaste sa xol da ngay gis benn waay bu yàgg déglu ay musique wala sax mënoon nga rek wala sax mënoon nga rek dégluwoo ko sax waaye dugg ci oto dégg ko boo koy woyantoo sax doo ko tey ndax enregistré wu na li nga xam ne mooy si biir xol kon fexeel ba xamal ne looy déglu mi ngi dugg sa xol ca am na lu mu fay bàyyi kon utal ma benn tame nga daal di segg lépp loo xam ne yaa ngi koy déglu fexeel ba booy toog na nga toogaale koo xam ne danaan la yàlla nee na yonent yàlla nee na moytul ma seeti koo xam ne boo nee salaamaaleykum ba baa ngi koy bàyyi sport ba sport ba koo xam ne nii magasin ba magasin ba kee musique ba musique ba kee xew la takkaay la la mu sol la mu nangam déedéet sunu borom mu ne toogaalee la koo xam ne wasbir nafsaka ma allazina yaduuna rabbahum bil gadaati wal ashi lii la ñu sunu borom yàlla dégg sunu yonente salallahu alayhi wa sallam dolli ca ne kii toog ak ku baax day yaa ngi mel ne ki toog ak jaay ko tëb lëj koloñ immaa nga jënd wala mu may la wala sax nga am ca xet gu neex ca mooy fokk bay toog ak ku baax muy wax lu baax lu baax loolu dana am lu ci des sa biir xol waaye bay toog ak nit ku saggan muy wax lu ban lu ban loolu day am lu ci des li nga xam ne mooy sa xol ñaareelu ndénkaane bi mooy sa mbokk julit xamal ne lii di ak dégg sunu borom yàlla may may na la ko muy xéewal waaye am na ay junni wala ay millions yi doomu aadama ci kaw suuf amuñu dégg googu te loolu mettit bu rëy a rëy a rëy la am na benn livre bu ma ci gis benn waay bu tax moo ko bind mi ngi ko tuddee le livre mooy le monde du silence adduna addunay noppi nga xool nit ñi ñuy wax xamoo lu ñuy wax lu mu doon ngay seetaan dégguloo lu métti métti la kon bu la yàlla dimbalee ubbil la say nopp nga xam na bu yàlla sakkoon nopp yooyu mboolem ñi nga xam ne médecins yi ci adduna bi ñoo daje woon mënuñu laa delloo nopp yooyu nga la way santal yàlla di ci déglu lu baax loolee mooy mbir bi xamal ne bis boo ñëwee sa kanamu borom amul kenn kuy dem aljanna wala ngay dem sawara lu dul sa borom dane na la ay yow diw man de mayoon naa lay nopp xañ ko ñu bëri sa nopp yi loo ci doon déglu tontu la boo xam ne nañ ko waajal fii bala ñu dem sunu borom subhanahu wa taala gannaaw bi itamit mbokk nañu góorgóorlu ci njaboot gi fexe leen ba xale yi ut leen ay kasatu alquran am yeta ak suuf soo toogee sa nekk nga koy déglu doo ko déglu ay yooni yooni yoon lu dul ne alquran boobu nga jàng mokkal ci saar yu bari bëggaale ci alquran na ngeen xool loo xam ne nii dana leen di jëriñ ci ay livre ngeen koy jël di ko liir fu ngeen mën a toll te ngeen moytul ma télévision bu bon bi ngeen moytul ma rajo yu bari yu bon yi nga xam ne quatre-vingt-dix pour cent ci seen programme la ñuy génne imma luy sànq doomu aadama la wala luy sagganloo doomu aadama te yéen waajur yi nga xam ne yi tamit yéenay fay courant bi yéenay jënd matériel yi nga la waaye góorgóorlu leen xamal ne sa dërëm boo des ci kaw suuf dërëm boobu yàlla dana laaj foo ko dugal ngeen góorgóorlu dimbile njaboot gi amul kenn koo xam ne bàyyi na gannaawam lu gën doom ju baax joo xam ne da koo yar ci lislaam doom jooju nga xam ne yàlla dana la ko laaj ëllëg gi si biir sunu borom mu ne fexe leen ba dox seen digganteeg sawara dox seen digganteeg sawara sawara amul ci àdduna waaye nu ñuy doxe sunu digganteeg sawara ak sunu njaboot mooy lépp loo xam ne dafay jëme sawara ci ay jëf ak i wax ñu fex ba def barrage diggante moom ak sunu njaboot mbokk loolu yombul lu dul ku ko yàlla yombal ci moom yal na yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci bépp julit rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin